waykat bi de dafa waxoon ni sama boppam ma la gënal du bañ naa la waaw loolee xel mën na koo nangu waaye li xew nii musiba gënu koo nekk naaru lay ubbi l'observateur te commissariat xal bu ndakaaru day la Abdou Faye pandre boppam faatu xaru l'observateur yëglekaay bi groupe Futurs Médias bi ne waaw dëgg la ndax moom mii day jàppal nag xaritam bu jigéen buy tudd G Thiaw mu ma abboon soixante mille ngir nag dépanner Baye Modou Fall booy jinne ba mu rëccee moo ko yóbbee lu lu mel ndax nag buñ sukkandikoo ci l'observateur dafa waxoon ni enquêteurs yi baleen kii mu dem ndax laale ci lenn loolee nag metti ko ba mu njëkkoon a sax mbëkku dañu ci miir ba daal di rëcc bi la yoon nag mu ne dee wute ko sax moo ko gënal muy dund di ko fekkee enquête bi dey la ci yooyu di ko fekkee mujj na nag takk boppam pandar boppam ci njàmpe faatu ba jota sax ne baal ma àq lii lépp maa la ko teg wax ko ndaw si si ko yéen kaay ne déet def la ndànk moom kay loolee faatu ko de di ak njàmpe mukk ci àdduna dafa rek fekk ne fan yooyee ab biram mu mi ngi doon metti doon mbëkkoo ko dañu ci biir cellule boobee kenn faalewu ko mu mel ne kon benn soxna buy defar foofee di femme de ménage di moo xëy suba cuuy fekk fa ab néewam tiit yuuxu woote ginnaaw ba nga ko fa gisee vox populi ni gis kay mënul passé jaxran ne jàq say bët ndax lan mooy liggéey garde à vue la police kon kon ñakk nay bëtam la police le perd de vue du Faye muñ koo fekk mu faatu kon kay na ñoo jàpp ne njàmpe googe kon ñu jàpp ne moo ko faat mënul setal police 24 chrono moo taxit de soxnaam soosee moom Abdou Faye nar na nag wax ak taskatu xibaar yi ci 24 chrono ne moom mi kay dana ci àddu ci mën dëgg mooy kay moom du wér ci xeexam boobee de ndax Seydi Gassama bu Amnesty International nee na day faatu gi mukk ci àdduna duñ ko ba mu dem ndax yàgg nañ di dégg ay bavure policière wala bokk ñuy faatu ci kaso bi daañu ko leeral ba mu leer nañ moom Seydi Gassama di chargé waa police source aané lu ci mën di am kay mooy police kay moo war a génn leeral te boo moytu sax dana ko def police dana àddu ci mbir mi ci nu ma gën a gaawee ci faatu fan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lii ma ne day lu ëpp nag ci li koy def mooy camions yi di oto yu mag yii ak cette place yi ñoom kay ku demee yomal xiyaam rek jàppal ne ñoo la fa yóbbu critique yéen kaay ni loo ci mën dégg jàppale ni dankaa fu munul passé li dal maître baabu moom mi kay bu maytuul dana ñàkk dëgg ak toogoom ndax fi nekk nii suspension di aj day nar nañ ko wade ci ordre des avocats ci nag béjjoo gi am ak substitut procureur bu Diourbel moom maître baabu ñu budget mettre te li ma waxoon lu toll ne tar fatal ay ndey duma ko ci teggi je ne pas d'un iota mon discours tribune yéen kaay ni discours yi kay jub na ci jongante élection locale yi fës na lool jamono yi locale yi ci région yi ak ci Ndakaaru de nekk ni Macky Sall jàpp ne sol na mbubum nag directeur de campagne dëgg te Ndar Géej ak Fuuta day coalition dëgg taxaw nañu waaye de Mali Gakou moo ngi koy feelu ci tournée nationale am ku jégi bañ nag dëgg yu mat sëkkam léegi jàppal nag jamono joojee matuwaay yi nga xam te ni waa CEDEAO jël nañ ko duñ ko ba mu sedd benn yoon ñu ngi nag dànkaafu Sénégal ci wàllum nag lii di protocole de la CEDEAO boobee Sénégal sous la menace mi ngi ci guuta waaye gaynde yi ñu jàppoon nañ dugg ci guuta génn nañ ci seen jongante yi ñu génn di stade yi ni kaay fësal ni à onze types des lions fukk ak benn lion yooyu di sargal nañu dëgg waaye nag kenn du ñii nga xamante ni ñoom day dañoo ñëw fësal dëgg seen taxawaay Nampalis ak Idrissa Gana Gueye ñii seen déggoo neex ndax lu jëm ci sunu làmb maa ngi ci yëglekaay boobu yootu ko jël Sa Thiès Bombardier ak Tapha waaw gagné ou périr gagné rek wala nax saay ah samay wax de seeni kàddu la ñoom waaye de ba ñu laajee Tapha Gueye mi xam-xam wàcc lool ci wàllum komba ci combat pour 26 juin bi ñuy dëgmal ci diggante Sa ak Moussa Ndoye lii la wax Sa màgg na Moussa Ndoye tamit bett na ma waaw moom Tapha Gueye moo ko wax man du samay wax jotali rek laay def kon bokk lii laa wax ba li ngeen dégg ñu yendoo ak jàmm